bile doomu jàngoro nag am ay njeexital yoo xamante ni def na ko ci askan wu Sénégal rawatina itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu euh, musique ba tax jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu euh, caada amaloon ab doxu nemmeeku ci yenn ci ay artistes yu si mel ni Youssou Ndour Ismaïla Lo ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàll wi li mu bëgg moom moo di ànd rek nan la ñuy def ngir daal di euh, suqali ginnaaw rek mbas mi ci fii ci réew Euh, bu Sénégal lépp lu soxal wàllu euh, caada Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ñoom ñoom leen toppoon. waykat yi wàllu Covid 19 nag dafa yàq bu baax a baax li nga xam ne moo nekk seen métier bi lépp ñaari weer kenn ci ñoom wayul ngir nag wàññi jafe-jafe yooyu nga xam ne Covid 19 bi moom moo ko waral ministre yor wàllu caada dafa seeti woon ñenn ci tenoru musique bi ngir mën a waxtaan ak ñoom. defoon benn planning depuis ay ci ginnaaw. pour que xam nga suñu wax monde de la culture mooy euh, art plastique mooy musicien mooy euh, euh, bindkat livre yi mooy ñuy def sketch ñuy def théâtre mooy ñuy def livre et ñu defoon benn plan ñu ne président daf ñu laajoon que ñu defal ko benn mémorandum buy synthétiser un peu impact bi à court terme mooy si ñetti weer yi ak naka la ñuy mën a réfléchir pour relancer euh, la culture dans sa globalité. Euh, il était important aussi si ñun acteurs yëpp malheureusement mënuñu visiter ñëpp mais ñu def ay échantillonnage boo xam ñu mën leen xool ñu déglu leen parce que écoute boobu moo ñu fi indi. njiitu super étoile taxaw nag comme ab avocat di layal ñii di musiciens yi rawatina ci instrumentaliste yi. le monde euh, des arts mooy maanaam culture bu ñu nee culture nag dafa yaatu sonn nañu fi mu ne jaaxle nañu tiit nañu ndax euh, événementiel ak spectacle ak culture dañ koy préparer ay weeri weer. looy préparé weer weer dem ba mu jékki-jékki rek ñu ne la mënatul am xam loolu diis na artistes yi ngeen di gis nii ku ci nekk am na cinquante personnes derrière bu ñu fàtte musiciens yi xëy na dinañuy wax turu chanteur bi waaye musiciens yi ak ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw les techniciens ñu jar jàpp lañu ñu fekk ko ci biir studio moom mii di njiitu Ramdan daal di joxoñ baaraam li nga xam ne moo nekk jafe-jafe yi. loolu nag kii di Ismaïla Lo daal di ko ciy feelu depuis presque belle lurette ñu ngi ne tekk yënguwuñu liggéeyuñu te te ku liggéeyul ni ko wolof di waxee euh, doo fayeeku gëm naa ne ak moom incha allahu rabbi kilifa réew mi wax moo benn geste mais dina def ay geste yu bari. métti na si ñun lool lool sax parce que am na yoo xam ne chaque guddi dañuy joué ah bu dul loolu sax sama mbokk restaurant yi ak boîte de nuit yi chaque guddi dañuy joué. te dañu ay yor suñu yor suñu njaboot ah te yor suñu njaboot war a dundal suñu njaboot te yàlla xëy si bu ne affaire bi na këpp. tournée boobu nag ngir mën a fexe ba am jafe-jafe yi nga xam ne moom lay musiciens yi di dundee ñu ci bëri nag daal di dem chômage li ko waral nag di wàllu Covid 19 li nu mel ñi nga xam ne ñoo nekk ténor musique sénégalaise bi rafetlu ko.